ak ñaaw njortu sabab na ci ñun ñenn ci ñun bañ ñeneen ñi ci des ñu am koo xam ne njéeg jéeg rek bañ ko te mbañeel gi kat amul benn cause wax dëgg yàlla boo ko doon gëstu bëgg xam lu ko sabab doo fekk mi dara lu dul ñaaw njort foog naan def na ma nàng wala njort naan dana ma def nàngam rek wala foog naa ne nàngam jee moo ma ko waxal njort loo xam ne amul benn sabab te njort lool nag moom lañuy tudde njort lu ñaaw ndax moo njort loo ci amul benn preuve te it ki nga ko njorte ci moom du lu baax xanaa dib safaan nee na ñaaw njort yóbbe nañu suñu dajee léegi niiw na am koo xam ne yéen ñaar daaw leen gëj a gisante waaye léegi ñaw nga njort ba dootoo dem fa moom moom dootu ñëw ci yow te ñaare li koy sabab rek bu yeesuwul ñaawe njort ne def ma nawloowu ndax du ñëw fi man man nit kon duma ko nawloo duma dem fa moom moomin mu ne gi moo fi daan ñëw te ñëwutu fi xawma lu ko taxatoog naatoo ah yow nga ne ginnaaw ba ma dalee dem fa moom yàgg na te mus ñëw fi man naatoo bu ko defee ngeen daal di réeroo seenu daje néew waaye yomb leen ca loola ngeen di dogu mbok nee na ñu bari ci ñun dañuy dog sunu mbokk ndax mbokk bu la dara siwut lu may di ko ñaawe njort moom kon dootu mbokk ca maanaam man ñi ko doon jàngale ci lislaam euh, yii yëpp nag xam na ne lu metti lu tax mu ñaan yàlla nee na nanu ñaan yàlla rafet njort ndax kër rafet njort moo ñuy may xol bu sedd bu noppalu waaye moo ñuy may itam xel mu dal moo ñuy may xol bu noppalu waaye moo ñuy may xel mu dal waaw boo rafetee njort moom dangay noppalu ndax mem bu dara jogoon loo xam ne safaan yow doo ko bàyyi xel doo ko yëg te bu fekkoon nit ñëw na ba yegg la ko di la avertir sa it danga naan ah lool de dañuy wax rek waaye yàlla moom lu mu dogal loolaay am wax goo nga wax lool te gëm ko nag mooy tax yàlla dina la défendre musal la ca loola moo tax bindkat bi ne rafet njort nañ ko ñaan yàlla ndax ci la nopp lu xol nekk waaye ci la eh, dënn bu am jàmm nekk te buñ ne dënn rek mooy xool ak xel mu kon loolu moo doon xikma bi ñu ngi sant ñepp di gërëm di jegglu wasalaamu aleykum wa